waaye yàlla moo ko dem dugal ca loxoom waa ju baax ñëw motale lépp far ah Moussa des fois annoncé ko dafay baax pour que ku ci nekk mën a góorgóorlu ba ñëpp mat incha na ko yàlla matal. waaw ni yaatal bi annoncé ni kii def keneen def keneen def ñëpp jëriñu loolu la ci jublu tant boobu ca Xurdaan. bañ ko waxee mu annoncé dana ci def jiitoom Moussa Seck mi ngeen xam moo ñëw jël ko lépp en charge liggéey waaye nettali nañ ma ba seen bay gaañu ñi def plan dañuy tabax xabru bi benn waaye na bàyyi leen nga ma tabax ko kay xalifa ba ma woo mboole mu wax leen ko kenn nga xale na ko loolu de bi ñu ko def gën ñoo bëgg lu baax suñu bàyyi def ci ñun li ñuy def ci ñun kenn ku ne boo génnee voyage ci sa xam-xamu bàyyi nga ngànnaayoo lu mu néew na ay deux millions indaale ko ñu ne yàng suñu bàyyi de kenn dañu ko tabaxal day def ñu def keneen def ñi def ñu ñëpp ñu am ci barke kon mayasin foofu la waxee yii ton yi mu wax moom mu ngi suñu poos incha allahu taala kon yéen waa dëkk bi nga xam ne yéen a ngi doon cotisé par douze mille francs ak it vingt cinq mille par mois par année incha allahu taala pante bi dana yegg da ngeen doon def Pastef rek na waaye seen kontaan na ak ñi nga ànd Omar woon na ma boori une heure dama maa ngi ñëw waaye dama kërëwe ci diggante yamam ak euh, Koungheul